di moom it bokk na ci membre Helping Children ñu fekk ko ci rond point Yoff maa ngi lay nuyu bàyyi la nga nuyu Sénégalais yi. maa ngi lay fay euh, di nuyu mbokku Sénégalais yi leen sant di leen ziar di leen baalu àq ci weeru koor bi. ren Helping Children nag mu euh, na mais dafa yaatu parce que à jàppale xale yi nga xamante ne seen loxo jotul seen ginnaaw wala gisuñu waajur gisuñu ku leen jàppale ils sont pas ñi nga xamante ne ils sont pas donc loolu moo nekkoon euh, concept bi ba tey jii ku ne xam nañu dañu nekk ci weeru koor donc ñu am suñu association ñu ne duñ ko yemale si xale yi kese weeru koor bi ku ne xam na ni am na ñoo xam ne dog ci mbedd bi la lay fekk ndax embouteillage yi ak euh, les aléas de la de la vie donc am ñoo xamante ne liggéey moo leen nekk mooy mooy tax ñu nekk ci mbedd bi donc am ñoo xamante tamit ñu ngi ci mbedd yi tax amuñu lu ñu ndogoo donc tey ñoon ñoom ñëpp lañu dajale euh, pour jàppale leen malgré que ñu def lépp sax mais ñu def li nga xamante ne nii moom ak di tolloo ci suñu doole. donc association bi hormis weeru koor di ngeen def yeneen activité waaw hormis weeru koor dinañ def yeneen activité parce que bëri na ay affaire sax yoo xamante ne ci biir ñu koy ñu koy def ci suuf ci mënu ñoo matale lépp mais bëri na yoo xamante ne ni ñu koy liggéey ci suuf bonjour maa ngi leen di fay di leen ziyaar ci koor gi di leen baalu àq di baalu ak Sénégalais yi nii. voilà c'est bon mu ngi baax ok. alors Coumba daaw ñu ngi la fekkoon Kër Massar def ndogu ren nga bokk ci association bii di Help Kids donc da nga ñuy wax rek lan nga lan nga yëg ci association bi ak bi nga ba léegi naka ngeen ciy doxee genre tout d'abord association bii nii ak boobu du benn parce que boobu tim Kumba famille la ñoom ñoo créé woon Kër Massar bii nag camping comme ni ko bébé waxee ak lu euh, mu tuddati Mimi voilà association la boo xamante ni dama jug jàppale xale yi mais nag comme weeru dafa jot te xale yi si lañu boobu te tamit dañuy def acte seen fonds yi dan moo am ngeen ay sponsor Sénégal ngeen tuuti am ngeen influence bu mag ngeen am ci réseau yi est-ce que am ngeen waaw am nañu ay sponsor mais tout d'abord yàlla moo ñuy jàppaleel boppam ndax bi ñuy débuté amuñu dara ba nii bi ñu koy def suñu xaalisu bopp la ñu génne en ba nii nii koy def suñu xaalisu bopp la ñu génne voilà donc am nañu aussi ñoo xamante ni jàpp nañ si comme au Kayar jàpp na ci ci ci ci ndogu bii nii ak chef moo chef moo traité jàpp na si man je suis apolitique mais sénégalais yi laa faral suñu bëggee rek damay ànd ak ñoom ci mbégte bi. alors alors Koumba seen association bi base bi. li ma la bëgg laaj. waaw waaw tolloon nañ ay rumeur rumeur yu bëri ci sa ci sa kaw exactement ndax tey toll nga fi nga war a mën a firndeel sénégalais yi ndax di forcé nga waaw wala déet. ma loolu lu ma ci yow parce que sama vie privée la. ba léegi xanaa soxla loolu lay tëj gundi loolu ma si tontu. ma daaw waxoon nga ko buntu yi tëju. parce man maa leen buntu yi dafa tëj. Ah, maa leen wax ay buntu dafa tëju wala dafa ma yéen yéen a ma gën a xam sama vie bàyyi ma bàyyi leen rek ngeen jàpp leen ne. sa <laughs> divorce dafa mel ni moo waral sax ma gën a jël recul ci milieu bi parce que ñu ngi lay gën doo koy gisaat ngay feeñ ci série bu tudd suma jiw mu xam Baye Moussa mbedd Baye Moussa xam donc est ce que sa mariage dafa am lu mu la yàqal sa carrière <laughs> da ngeen neex sax des fois ngeen posé man benn moom a fekk ay série débuté mënuma tëb tëb rek dugg si série yi bi ma waree duggaat série gis ngeen ma ak waa Marodi Mbedd Baye Monsieur et que am na yeneen projet yu ñëw ci kanam incha allah xaar leen c' est que artiste nag bu war di jouer rek bu yàggee da ngay lambal sa image en fait. Coumba dañu ko la. école pro man fa laa dëkk ah, man ñooñu sama waa kër la. <laughs> mais yaa bokkul série yi fa jaar gisuñ la nga feeñ. ma gis incha man école pro laa de naka ñëpp xam man man man mburu école ci seen boulangerie laa génne. comme Evenprod nga bokk ñu ngi wax naan euh, Bété Bété ak Babel waa Evenprod dañoo copier coller waa Babel. Ah, man loolu leeru am nga fa ay idées yu leer. mani loolu leeru ma <laughs> bu leen ma dugal. rajo ne mu Mohamed Mohamed Alla Diop jàngkat. man dafay des rumeurs que a nekk en couple ñaar. inchaallah ay yow kon de loolu yëguma ko woon. loolu yëguma ko yaa yëguma ko ndeysaan loolu yëguma mais Mohamed c'est mon jour. mais alors alors Coumba la moo tax. kooku moo ma boole ak moom defal naa ne ndax jàpp lu leen neex. kooku yàlla moo ma boole ak moom. muy sama jour moo man donc foofu rek laa mën a yem leneen li si des nag lu waay jàpp loolu yow la. alors Coumba la moo tax la moo tax la plupart daa mu dem. Diagne Diagne. Diagne Diagne waxtaan bi jeex na Diagne wuyul fii wuyul fii allez-y. alors Kuba euh, lan moo tax la plupart dañuy gis célébrité yi bu ñu xasee ba dugg si mariage génnaa si day tomb loomu durée bi nga xam ne nii pour ñu duggaat si c'est tout un moo koy def. xam nga sëy yàlla moom moo koy takk mais xam nga sëy moo koy takk bu ko yàlla jeexalee day jeex bu yàlla namaatee nga dugg si tey da nga yàlla namaatul doo si dugg loolu ay affaire de célébrité wala keneen gis nga fii ku dul célébrité tas tey suba mu am jëkkër loolu yàlla la gis nga ku toog ay ati at te du dégg sax alxayri loolu yàlla la donc lu am rek yàlla la. am mais li ma ci waxoon laay waxaat. bis bu may bis bu may am jëkkër. wala may euh, divorcé wala yooyu noonu. nekkul dama leen di woo di leen wax kaay leen yéen peut-être ñëwal seen bopp pour ay information mais amul leen lu ma ciy wax. d' accord bis bi ngay am jëkkër ça je te dis pas am naa jëkkër wala aw jëkkër waxuma loolu de dama bis bu may am jëkkër non dama ne bis bu may am jëkkër bu may tas bi bu may am doom loolu yëpp laa waxuma j'ai pas dit que bis bu may am jëkkër voilà lu jëm sama wàllu bi privé en fait je veux dire merci ñu jàkkaarloo bu ak helping children ren nag ñoo joxe ndogu ci rond-point Yoff bi donc ñu bàyyi leen euh, benn par benn ñu yëkkati ay kàddu ñu jàkkaarloo presse bi tey yaa booy ñu ngi lay nuyu yow moom kenn dootu la présenté parce que xam nañu grand doo wàcc tuuti rek kàddu nga njëkk a yëkkati maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen baalu ak te di leen baalu xoolal yi di leen nuyu di leen ziar di leen baalu ak te di leen baalu xoolal caméra bi voilà tey helping ak nit donte 30 minutes ñu am ko bànneex may nit ñi ñu ndogu te yàlla rek tax ndax dañ nekk ci weeru koor muy weeru yërmande weeru partage weeru dimbalante ak defante lu baax loolu nag moo ñu yëkkati tey waaw waaw alors euh, naka nga gisee seen seen seen euh, seen concept bu bees bi ngeen créé bi mooy premier épisode bi wala daaw defoon ngeen ko wala ak nan ngeen def ba tey. non ren ren la ñu dégloon décembre la ñu commencé partagé xale yi ay kàddu neexal leen passé quelques bons moments ak ñoom fecc ree waxtaan wooy ñun dañ fee nekk daal juste pour loo xam ne lépp xale yi la rek neexal xale ne veut pas dire que duñ leen yar dañ leen di neexal bu neexal jotee. bu yar jotee yi dañ leen di yar wax ak ñoom te teg leen ci yoon. pour ñu xamul helping children qu'est-ce que ça signifie lan mooy concept bi de quoi ça parle. helping children wax ji wax na boppam aidons les enfants ce qu'on demande juste c'est d'être aidé parce que yenn yi boo ko tàmbalee moom vraiment ak loo am am doole da ngay soxla ndimbal da ngay soxla appui soxla ku la ku la ci li ngay def loolu rek dañ jug pourquoi le choix de certaines célébrités yi ñu gis ñu si bëri c'est des actrices très connues lu tax suñ fi ñeneen ñi wala yéen yéen a ko créé pour l'instant di di xaar ñeneen adhéré ko waaw ñun euh, amuñu limite ku ñëw ñu fat la ku ñëw rek ñu fat la mais dafa fekk ñun ñoo toogoon ci waxtaan la affaire moo am idée bi bi mu amee idée bi ñu waxtaan ci jubóo boobu ba léegi ñu ànd nag di ci dox te lépp a ngi rafet dara ñaawul. côté organisation comment ça naka ngeen di def ba am fond pour mën a joxe ndogu parce que ndogu c' est de l' argent dafay jar dajale xaalis euh, naka ngeen def ba am koppar pour mën a taxawal li xam nga dañ nekk dëkk boo xam ne Sénégal nit ñi dañuy bëgg a def social mais amaan na ñeen ñi ndeysaan du ñu jot a gis koo xam ne dañ jël social bi tey ne la am. donc am na ci bunt yoo xam ne boo fëggee rek à l' instant dañuy faj sa soxla ci ñu mel noonu rek la yàlla rek ñuy daj. yow sa kanam ñu ngi ko gën a ràññee ci série Adja. toog nañ ay weer koor yu bëri gisuñ leen ngeen feeñ ci écran bi euh, seen absence sénégalais yi namu nañu ko est-ce que prévoir ngeen defaat seen retour ak aussi gis nañ beneen série bu xawoon ndróog concept comme Adja bu tudd Fatou les mêmes ñoo fa nekk di ko joué est-ce ngeen bëgg a transformer yóbbu ko ci Fatou non non non ça n'a ça n'a absolument rien à voir d'ailleurs Fatou may actrice principale Adja Adja la loolu beneen kii loolu mënu ma ci wax waa Marodi ñoom ñoo ci mën a wax amul benn acteur bu mën a taxaw tey na leen lii moo tax Siré Adja amatul wala lëlee tax ñu arrêté ci ñoom la dépendre rek ñun ay acteurs lañ suñ ñu woowee pour liggéey dañuy liggéey li tax mu arrêté it xamuñ ci daal man boog man xaw ma ci daal. yow en tant qu'actrice yi jàppoon ni c'est le même concept Adja ak Fatou c'est les mêmes rôles les mêmes personnages. non c'est diamétralement opposé c'est diamétralement opposé concept du benn en fait. mais mais li nga wax rumeur bi ak. loolu mënuma ci tontu parce que ay rumeur la rek ñun ñëpp amul benn acteur bu mun taxaw ne la lii moo yàq série Adja franchement du loolu. Diagne